mais boy

déggal loolu. waaye ñun na li ma bàyyi kër ga de. yéen mais fan ngeen dëkkee ci side bi. fii rek ñun am bees ah, la. Ah. Mm-hmm. waaye mais fee dafa yéen fi ngeen dëkk ci koñ. fi lañ dëkk mais ay gan yu bees lañ fii quoi. Ah. mais ñun xoolal ay wàcc yu bees nañu fii ñett fan rek lañ fiy am. fii nii si koñ. mais ñu juddoo ba léegi ñoo gis lu mel nii. loolu de mu ci koñ bi. mais wuy ma mais ñëw seen kër mbaa du am benn jafe-jafe waxtaane ko yëkkati gis nga alal du dara suñu appartement bu baax lañ yor lay wax ni papa dafa tabax nga na maam ko jox ñu appartement kan lañ war a ñëw maam moom bu leen neex sax moom nekk léegi ah non bàyyi ba ngoon jàpp ndax fi mu ne dañoo war a génn bàyyi leen ba ngoon rek teel mooy gàlla bi may seen nii en beige la waaw mi ngi ne nga jàkkaarloo beige mais foofu la est-ce que xam ngeen ne di àppoo naa la de. waaw gis nga fi dama gis nga. dara léegi xam nga lu ñu def ah. mais kon 6 heures maa bi rek incha allah ñu xool li doo leen bàyyi ñu taxaw ba ci kanam sax ñu duufal suñuy bët boo. koñ bi ñëpp ngi ah, ah, ñuy xool non non baaxul. maa amul leen jabar rek. non ah, lu ñu doy jabar. jabar jabar la daw. amul kii. man moom waruma borom jabar. man waruma borom man moom comme jabar luñ koy doyee. waaw kon baax na kon yéen. waaw Ngor soir merci beaucoup. ok. baax na ci man daal lii rek a taxoon hmm. ma bëgg a dugg ci cité bi. seer mën na sañse macha allah man koñ bi ma nekkoon ay seer lañ xamuñu dara ñetti yoon jël naa fa miis. yow hmm. man rek. yow naa la ko wax. nii rek moo taxoon ma bëgg ngeen ak tubaab yi si yi si bëgg seen bopp. macha allah yàgg na. xam lu xew ci tendance ngeen koy def. waaye fee ay mëgg rek man dama balancé woon te xaju la def maa la ko wax jigéen boo ca gis xale bu jigen ma def la ñaari mbëggam di mel ni kuy lettu cosaan waa jant nangu nañ la nag. laay maa leen yaa si jàpp. yaa si jàpp sa appartement appartement. waaw gis nga tey daal dañoo ñëw ñu xaar ñëw si la daal moo toog fii. fii sama toog moom wala seen wànq. laa ilaaha illallaah sama jëkkër. ah sama jëkkër a jënd fii. xam nga man damaa bëri tiital sama jëkkër ko jënd ma tuxu fi yalla dogal ma gis leen xam ngeen ne yéen ci bi dama yagg yàgg bëggoon dëkk ndax yéen naka jekk ko taw naa sama ko tundi wax na ko dangaa xew ci jamono naka jekk ma xam ne daal daam waa yéen da ngeen ñoo toog da ngeen ñoo toog fii ah sëy taxaw war ko fi yéen ba sëy si leen rek benn yoon waroo leen woon topp na mënu leen yoo xaar yéen nan ñu génne léegi dara yàgg dara yàgg bu jaawale photo yi beeg baa bi

Ari baabu ko ma nag ma a jekk ma leen gis seen sikki ñu màgg yi mel ni kuy dem ñu ñu war a waajal màggal rek mel ni ñëmbat seen sikki ni rek la ma yéen merci rek laa xam ñi kon ñii samay mag la ah yéen seen sëy si yombul waaw ngeen dugg si nii tout est bien xam nga lu ma bëgg da ngeen di jug yëgg kër ma leen di dab yéen seen sëy góoroo gaal gi. billaay moom da ngeen may yàqal. damaa war a topp ko pegg. Ah. baal leen ma gunge ba du dëgg. merci beaucoup. bébé sama xarit bi si waay mun a gaaw. sëy bi day gaaw. bébé mu wax dégg nga. maa ko pegg ñu dem. bàyyi jàppatoo yow fii dañ ko jàppandoo rek bàyyi ko. yow la yow ñu rek. ñu ko merci ñu baal a. merci merci. bisous bisous. bébé chérie tout à maman yi man maa ngi doon xarit ci koñ dama lay seen sikkim yi mel ni ñëpp leen ci def tawaate ba ma leen gisee ngeen gëj a sol bàyyi naa def wala daa obligé laa xam ne balance ngeen ndax cité bii macha allah ñu fi nekk ay naan tëral de boo leen joxul ci lu lu mel nii leen fi bàyyi moo tax nag ngeen am seen jabar yi waroon leen toppatoo toppatoo leen. nee ngeen woo yaay. yow ay noppi dem. waaw nga génn sa couleur yu été nii ba toog di jaay booy tàng damaa bëgg nga réglé yow yaa fi mënoon nekk kii yow bàyyi ma. waaw léegi benn affaire rek laa lay ñaan maman. maman bu ko dégg bu ko yëg. xoolal xoolal fi mu nekk nii maa ngi dund ak jana maa ngi ci jàmm ñu ngi may taw taw bu ma ko yàqal kii xam naa bu ma ko yàqal xam naa di koy léegi xam nga la man dinaa la mën a yóbbu ci xaalis ñu ci kër gi bañ koo yëg. mari odo ndey bay bama ya ay yak sa bop man soxlo ma sa xalis regle le gen men ni ñuy waje jangi arab pisas eh eh waxal ki yow mu ngi wax ngay lox ah, di mel ne pour ñaan kat yow munoo yem. ah copine ci loolu jongo may. maman yaa di fëlaar di sànni dafa di def lu leen neex. léegi maa ngi dox ma naan waay. toog noppi ah waay waay ñu mbët dëkk kii dañoo war a rajee. dañoo war a may jàmm ma kii cent mille jox kii cent mille man xam nga lu trois cent mille. trois la waaw. trois cent <laughs> na nag waaye nit xamul na lépp di digal tey tam du dëgg. moo leen koy jàpp xoolal te na ngi may ñaari waaw waaye tey ma xam ne santaar bi. waaye laa ciy bëri. ah waaw loolu la ñu woo leen fii di leen may cent mille ngeen di jënd lu ngeen di jëndi. waaw. léegi moom cent cent yi dina génn mais trois cent yi day xaar. trois cent laa soxla deux jours. déggoo li ma la wax mooy bàyyi mu tëb baa mu dig boo leen ci liggéey rek ngeen def ko. naa leen bàyyi ngànk nag. xam naa da ngeen doon waaj a dem place ñu soulage seen. ak seen sikkim yi ngeen war a wàññi mel ni oto ñu mbat. maa ngi dem ñoom ñoom ñoom ñu dem. bébé. waaw chérie est-ce que ñu wax tamit ba. da nga leen yóbbaale maman. déedéet boo demee dañ koy yàq moom la dugal xale bi toogal. kii neex na bu ko génne kër gi. nan nga téye ko ci biir génne ko. maman bu ma ko génne booy booy maman yàq na sama sëy dina ko wax. nan ko génne kër gi dina ko wax booy te tamit instant yii jiwu bi ma jubóo nii booy maman dina ma ko yàqal booy. buy yow xam-xamu ñee xarit ma ma yow ngay fay sa rakk di am ay xarit te doo leen xam ñu def. sama rakk ji damaa xam fu muy dugg fu muy génn tànk bi ne bari nga lu ma am lu ma ci mën. mu amagul fi ñetti fan sax di am ay xarit fii mën na dugg xarit bi man dem booy xam nga la jëndi bi. wóor sama day ay wóor ay wóor sama day ay wóor ay.